suuf si. ma la ci lenn bëri laa la wax. man foo jaar nga tax suuf si foo jaar nga tax suuf si da nga koy sotteeku bëri ñëwaat tëddaat mu lay neex mu lay naqari la 10 juin fooy bañ jaar fu ne Diop 2 jeex jàmm dina borom soow borom soow mi ngay wax naa doole ah jeex amoo doole. foo yow looy fooy bañ firi naa la fa jaar la. boo jóg doole si xale la di lay le dix ba le dix. ba moo tax la jàpp si laa a fooy bañ ma jaarale fooy bañ fi doole jëlal lépp mun maa bëre amoo doole mais maa daan ak ngor waaye ak doyloo di nga doyloo Seexuna Cheikh Ahmadou Bamba mun gi taxawal Moustapha Diallo Moussa Ba na ngay wàllee. Serigne Bamba na sahittu bi anna wa an rasul sama am nee nga xam ni jullit yëpp dañuy mànkoo booloo dajaloo mucc ci sa ayu gémmiñ ak sa ayu loxo bal la bettuwoo kenn xeeboo kenn xasoo kenn saagawoo kenn yàqaloo kenn loroo kenn dóoroo kenn xanaa koo dóor lamb la nanu jàng xatmu alxuraan ku def lu baax dañ ko wax da bi làmbu réeré yaa ko for da ngaa bari jom sama xarit bi ma yàlla musuma laa woo nga ni ma tiit yaa bari jom yéenoo jëlee dokkuteem ak ay xarit ñoo maa di ma góot di ma góot ñoo ngi ñaan ngir jëm yéen ci bu ne ñëpp toog ñu jàng xatnul xuraan bi alaji bakar sama leen ma balla ni su teele mbokk yi nañ ñu may tuuti rek nañ ñu may tuuti rek ñu jàng xatnul xuraan bi tuuti champion Alo. Aleyküm selam. Yalla bak bak. maa ngi sant yàlla. waaw waaw waaw. hôpital Roi Baudouin hôpital Roi Baudouin. waaw hôpital Roi Baudouin. waaw kon ki ci gàtt bi bismillah. ki ci gàtt bi bismillah. mbooloo mi borom rajo bi yow ma tuuti mbooloo damay faral di wax ni ku gàddaay sa baay ànd ak sa ndey fële sa aawa génne sa taaw dëkk ba nga jëm da koy seen waaye doo egg barke nuyu na la waaye fayloo ko mbooloo man ngaa baax ba gën say bokk waaye mënoo baax ba génn say bokk mbooloo mi Serigne Jaxate nee na xastee fi xew ak fen kuy mer di wax say ayib kuy bég di wax la saf ba fekk na gëmu ko Serigne Mbaye Jaxate nee na kuy bég naan la yaa gën ñëpp yaa man ñëpp Serigne Mbaye Diakhaté nee na la meree daal di wax say ayib ba noppi tekki ni ñëpp la gën nee na mënoo daw ba daw seenu mer baa nga daw ba def seen mbiram defal la nga man la nga mën nga bàyyi ko yow moo ese jiey dameel samba law be dameel samba yaay Fall Cheikh Ibrahima Fall góor dëgg bàyyu lan la kooku mooy Ousseynou Ndiaye digganteem ku ma laaj ku nu doom ji Lamine ku ma laaj ku nu tudde doom ji ku ni buur géwal ku nu tudde doom ji ku ma ko waxaat yàlla nga am ngërëmal Seyduna Muhammad ki nu ko tudde mooy ki mujj ñëw ci lamb ji mooy ki yóbbu woon baayam Makka mooy ki yóbbu woon ndeyam Makka mooy ki yóbbu woon ay baayam Makka mooy baayu Muhammad lii buri bàccee baayam sëñ bam nay baayam seexul xabiib maa suurul xaliil wal xabiibu wal limaam wa daliil balla li ma jëloo mooy sëñ Bamba dañ na maayam rek dañ na lambar la moom sëñ Tuubaa dañ na jot a nar dana liir waxan ne yaay naa ko ci yonent bi li muy def nii confirmation moo am tey li wolof di wax confirmation mais ba mu tuddee Balla Gaye doom du yàgg yàgg na ba mu bëggee Balla Gaye yàgg na liiru dégg na lu nekk ndax Balla Gaye liiru saaga nañ ko ndax Balla Gaye liiru door nañ ko ndax Balla Gaye liiru wax nañ ko lu nekk ndax Balla Gaye tey lii confirmation la xam nga kan moo amatul droit def erreur ci àdduna oh. muy Balla Gaye ndax liiru defal na ko lépp dëgg la dëgg la père yow lu baax rek ngay wax santal baax sant gi nga war a sant ak mbégte la santal sa xel daal di di euh, xam ngeen ñu ngi ci tudd Lirou Diane li ci yéeme nag mooy ki nga xam ne mooy Balla Gaye 2 moom la Lirou Diane def lu rëy tudde ko doom ji Balla ngi lay nuyu di la ba suuf si. ma la ci lenn bëri laa la wax. man foo jaar di nga tax suuf si yow foo jaar di nga tax mu lay neex mu lay naqari la 10 juin fooy jaar fu ne Diop 2 jeex jàmm dina la fa naa doole ah jeex amoo doole. foo yow looy fooy bañ firi naa la fa jaar la boo. doole si xale yi si xale yi am nga doole si la di lay leer. jeex bi ëkk bi la doole le ba le 10. ba la jàpp si laa ma jaarale fooy bañ firi naa la fa jaarale fooy bañ firi naa la fa jaarale. doole. jëlal maa daan. le 10 naa daan